j'adore. J'adore. Une vermicelle ak macaroni ah, merci d'avoir choisi la meilleure chaîne du net mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax rédaction bi di am mbégte saa ci di àndoo ak yéen ci ndimbalu Abdoul Aziz Ali Ndiaye borom huile j'adore vermicelle j'adore ak macaroni j'adore rédaction bi di leen di gunge ci ay jotaay yu ngeen di wettalikoo lépp luy jàmbat également wala luy polémique ci société bi ñu koy topp ba lépp lu mu ajoo rek ci ay leeral ñu fas yéene leen ko di xaritu Wally Seck Cheikh Mbacke lay wuyoo moom la rédaction bi di am ak jotaay Cheikh Mbacke c'est un plaisir quand même nga seet si rédaction bi ñu ngi lay jaajëfal ci disponibilité ak euh, teewaay bi nga accordé l'équipe bi. waa ginnaaw bi ma sant yàlla sama borom julli ci yonante bi damay sang sama sang ba Serigne Touba Xaadim Rasoul. Mhm. di nuyu waa Sénégal gi yëpp. di nuyu ñëpp képp koo xamante ni ci dimance bi fi nga toog nii tey yaa nga fa toog Cheikh Mbacke mi ngi la fay fekk di la nuyu di la jox cër bu doy sa diggante ak moom. Mm-hmm. waaw di nuyu sama dëkk ba waa Diourbel di ñaan yàlla ak yoon ak Sëñ Touba yàlla defal ma xiigal defal ma wér ma gën a bëgg Sénégalais yi Sénégalais yi gën maa bëgg. du ñu toog ak yow te waxtaani wuñu ak yow li gënoon a nekk actualité en tout cas ci semaine euh, bi ñu génn muy euh, ñàkk déggoo bi nga xamee ni wala polémique bi nga xamoon ni euh, juddu na ci diggante Sidi Diop ak Wally Seck ngay fecckat également nekk ci ki nga xam ne mooy Wally Seck ban gis-gis nga am ci wuute bi nga xamee ni jamono ji fës na ci diggante Wally Seck ak Sidi Diop Cheikh Mbacké waa li ma gis foofu mooy rek coow la bu am ñu jiiñ ñu waaw ki ñu jiiñ sama kilifa la ñu jiiñ ko daat soirée bi moom moo fa sànni te bu nu xalaatee ci ginnaaw ci ginnaaw rek bu nu xoolee ci ginnaaw rek nit bala muy wax day réfléchir bu xoolee ci ginnaaw ñañu jiiñ ka leen gën a ka leen gën ba Sénégal xam leen wàll li ñu ko waxal nii jiwuñu ko jiwuñu ju leen ko jiwu leen ko moom waaye ku ko xam xam ko ci ngor hmm. ak fulla ak jom fii mu egsi tey du ay débat déeb fii mu egsi tey du pexe liggéeyam jomam ngorom fullaam faydaam vision moo ko indi fii tey soo bëggee mel ni moom da tëj sa gémmente liggéey moo lay indi fi waa di toll tey mais du bruit ak coow ak bëgg est-ce que aussi jaaduwul xel mu dal ñàkk am ci staff Wally Seck quand bu dee Sidi Diop franchement quoi qu'on puisse dire foog ñu wax ko bokk na ci ñuy représenté quand même Sénégal jamono ji boo nee Wally Seck sañoo bañ a tudd musicalement parlant foog ñu wax ko aussi am na lu mu représenté est-ce que amul loo xam ne aussi menace boo xam ni staff Wally sekk jamono ji ñu ngi koy gis ci booy bi te xëy na askan wi gisuñu ko yéen ñi nekk bis bi yéen ko gën a xam aussi Cheikh Mbacke roi mu ndaw du ko yëngal roi mbër mu ndaw du ko yëngal Balla Gaye yaawu jàll jaaxalu ko da koy def rakkam rek fu mu fekk teral ko olof laa la wax. Waly mooy roi de arènes bu musique gu yu Youssou Ndour nekkatul bokkatul ci làng gi sunu mag su pap la. moom jóge na fi jox na raw gàdd bi ku ko yëg kukul gu yëgul jox na ko waali boo bëggee mel ni Waly mooy li ma wax da ngay joo Waly bi mu dikkee def fekk ay magam fekk fay magam tëj gémmiñam di joob bu ñuy wax star Sénégal star nga nungu ko nga bañ koo nungu nga xam ko wax ko nga xam ko noppi waali mooy star yaa may dégg baax Wally amul lenn lu mu war a gis ci benn waykat bërki dee montaay nga gis ñoom Chris Brown mu nekk ak ñoom di joobandoo ñoom te biyantoo di nga xam ne Wally daa joobi woon foofu waaw kuy taxaw ñoom Chris Brown waaye Sadio Mané équipe bu nawetaan yi dina ko jaaxal équipe bu ay e comme nga dem Diourbel fekk fa benn équipe nawetaan ca koñ ba Sadio Mané nekk Liverpool loolu war ko jaaxal tey bu ne la woon Sadio Mané moo jóge ñëw si yàq benn équipe nawetaan yow loolu sa boo tëddee di ko xalaat waali du ñii te ñii duñu ñoom barki Cheikhul nga baal ma Cheikh Mbacke rédaction bi aussi dañuy jàngat jàngat yoo xam ne franchement dañuy bëgg askan wi di ci di ci di si jëriñu en fait. musicalement parlant c' est vrai que xëy na waali nga àndal c' est très normal quand nga défendre ko ba ñu xam ni Pape Diouf ba foog ñu wax ko quand concurrence bi ñuy nemmeeku nii euh, daan nañ ko quand même di ko wax ci digganteem ak Pape Diouf. musicalement parlant tey dem na ba li mu représenté xëy na kenn dootu ko bañ boo ne Pape Diouf di tudd Waly est ce que aussi loolu xam ko quand même à travers ki nga xam ne mooy Wally seek parce que mbir bu mag la woon dafa fekkoon ay mag jamono ji ay xale nekk ci ay tànkam aussi Cheikh Mbacké waaw dama la dégg léegi nga ne Wally bi fi ñëwee fekk na fi Pape Diouf aywa waaye mosuñu jiiñ Wally pompe à gaz Wally bu fekkee Pape Diouf it ah Pape Diouf la ah joob na di joob di joob di joob ba yàlla joxe joxe joxe victoire bi da dafa joob Wally léppam joob la bi mu fekkee Pape Diouf it demul ñu naan dafa mësuloo dégg ñu ne Wally jiiñ nañ ko ne ko moo yàq soirée Pape Diouf mësoo ko dégg xam nga ci nun joon ci nu mu fi jëlee ñëpp ci liggéey ak Sénégal bëgg ko réew bu la ndaw ña bëggee réussir nga mag ñi dañ fiy jóge mais réew ndaw a ko yor Wally ndaw yee ko bëgg gisoo bu dara amee Wally du tontu personnalité ci kooku la yem bi fi fekkee Pape Diouf dafa joob mu leer la yow leer ma leer waa àddina bi koy seetaan Wally dafa joob joob ju ànd ak yar ànd ak personnalité ak xol bu laa dama la bëgg a wax benn bu tuuti barki Seexul Xaddim ku la gën xol moo la gën tey laa la koy wax fii képp ku la gën xol hmm. moo la gën ku la gën jikkoo la gën yonente bis mbindeef la comme ñun yàlla da koo sàkk muy def ko ngën gi mbindeef lépp luy soxor amul nekkul ci yonante bi yàlla bu ko day jël xolu bi am leneen lu mu ca def waaye daa xam ne kii mooy sangu mbindeef yi ku nu bind yaa tax hmm. mu jël loo xamante ni lépp këñaan la ak ay jëw ak yi xew léegi yépp dindi ko ci xolu yonante bi def ko sangu mbindeef yi moom la sama sang ba sëñ Touba bëgg ak mag ñu baax ñu fi nekk ñëpp moom la ñu roy waaye li mu dikkee fekkee Pape Diouf ah daa liggéey rek daa liggéey rek xam ne ne Sénégal ah danoo bëgg kuy liggéey xale bu am jom ah waale di liggéey rek di liggéey di liggéey ba yàlla def li mu def mais mosoo dégg ñu ne waale moo def lii waale moo def laa mën nañ ko sosal nag ci leneen. gisoo ni musicalement parlant certes staffu Wally wala waa Faramareen dañ mëñalul Sidy Diop lu bari moo tax xëy na par rapport ak li nga xamee ni jamono ji mooy polémique muy pompe à gaz bi ngeen yegg foofu aussi peut-être que am na staff boo xam ne jamono ji ñu ngi kay accompagner d'une manière boo xam ne amu leen choix aussi xëy na moo waral euh, cette fois ci ñu accuser leen loo xam ne xëy na accuser wuñ ko woon Wally jamono ba muy concurrencer ak Pape Diouf. Euh, dama laa bëgg expliquer benn affaire ma ko tey mu leer man ak yow ak ñiy seetaan. waali amul lu ko war a yëngal estafuy waali amul lu leen war a mën a yëngal ba ñuy pompe kenn gaas waali du roy sax mbóot borom xol bu laabiré noonu mosuma ko gis man maay Cheikh Mbacke dama ne man maay Cheikh Mbacke lu la wax ci waali bind ko damay ñooy lekkandoo naanandoo ànd waali fanaan lañ dul def te na jamono yoo xamante ni day tëdd ma tëdd déggoo li may wax du waxal nit loo xamante ni nekkul ci moom man dama am personnalité à man la Cheikh Mbacke est-ce que dégg nga li may wax. Hmm. dama ne la Wally amul lu Sénégal lu yàq xelam wala lu koy mbap lu koy tiitloo wala lu koy ragal Wally dafa mbappat dafa rampe liggéey ko indi fii dama ne du ay njiit ay du dajaloo waaye loolu indiwu ko fi ci fii mu toll nii xam lu ko fi indi. Hmm. nekk xale mën a sañ sa lool civilisé li gën ci doomu aadama mooy xool bu rafet. dama ne la man ngaa loo mën a am te moo xool bu rafet dama nga fexe ba ut sëriñ bu la ñaanal nga am xool bu rafet wala dafa liggéey am jom fulla ngor li mu liggéey nii du kenn ko ko jàppale. moo ko moo ko faayital boppam nekk xale bu ndaw bu ko neexoon defi leneen yeneen métier ngi fi yoo xamante ni ci kaso bi ngay dee waaye deful loolu lépp dafa liggéey am jom am ngor am fulla am fayda am vision moytul moom nit ko am vision. mais mais wax ko Cheikh Mbacke aussi Sidi Diop aussi foog ñu nangul ko ko dafa liggéey quand aussi di yëngal quand foog ñu wax ko yëngal bi aussi est-ce que leen. aussi parce que ndaw la c'est vrai que waale ndaw la ma xam ko maa ànd ak waale studio walla di way mbaaram mbaaram jamono boobu Chrysler lañ yor ñu ñëw gaare ay minute sii di ñëw nuyu ma man ça va copain ma ne ko ça va yaa ngi ci jàmm ne ko maa ngi sant mu ne ma dafa mel ni daanaan benn ci biir ma ne ko waaw mu ñëw jour boobu ataaya ji waali naan sii de ko ataaya ci loxoom moom Sidi Diop déggoo li may wax xanaa li télé la Sidi xam na ne xam naa ko man Cheikh Mbacke dama ne la at jour boobu maak moom ñoo toog waal di enregistré ne le mu yor benn téléphone ni ñu toog di waxtaan man ak moom est-ce que dégg nga li may wax Sidi ñëw na ay yooni yooni yooni vok vidéo yaa ngi daw waale bu soxoroon waale amu ci benn booy bu mu soxore Sénégal fii ku fi génn rek ñëw nga vok rêvé woon nga fii ku fi génn rêve da ngay rêvé pour ñëw gis waali pour mu taal la. waaw ah, bu la taalee ba nga tàkk c'est vrai que c'est normal aussi nga opposé ko xam ci biir ay wayu Sidi ah, waali maa ngi ko de man amut lu xew ci waali te fekkewu ma ko. waali lu mu def dañuy am léegi ma egg si wala bi ñu koy def dama koy fekkee man na Cheikh Mbacke wax naa la ko damaa xam waali pire man bëgg ko pire yemale wu ma ko kenn. man Cheikh Mbacke koy défendre quand même. dina non non man bawal bawal laa te habite à Diourbel alaaji ndend bu bay sama baay ajaratu màgget kenn day sama yaay. Hmm. man kenn feesut sama bët bu ma koy wax man déggoo ma leen sëñ Touba laa yaakaar àddina gi ak àllaaxira du ma waxal kenn lu mu waxul lu mu mënul damaa soow damaa bari tiitar man moo tax du ma waxal kenn lu mu waxul wala bu ñu doon ànd muy am yenn yu muy def nii laa la koy waxee à part Wally dama ne la man la Cheikh Mbacké Sénégal gi yëpp gisoo fi booy bu mel ni man ku civilisé comme man loolu gisoo ko ci booy artistes yeeg yooyu. gisoo ni aussi concurrence bu jaadu la quand même fi Sidy Diop toll mu xaw a concurrencé quand même ak Wally Seck musicalement parlant lu xel mën a nangu la lu jaadu la en dehors de xëy na pompe à gaz ak li ngeen koy accuser jamono ji. Sidy ak Wally du concurrent. mais lu tax ku xel xel la dafa bëgg a màgg. si nekk sama mbagg mi ngi bind bàkkaar bi ma tuddee Sidy tudd Wally baal baal ma dootu damati du concurrent nañu arrêté di wax loolu billaahi wallaahi taalaahi mooy gi ñu jullit bi gën a mag sa waay waale de seetul mais lu tax déglu ma du concurrent hmm. waale boo ko bëggee yeb dangay ngay def table un million waale boo ko bëggee yeb da ngay jël grand théâtre def ko trois jours tegale ko muy fees dell waale boo ko bëggee yeb da ngay laal Bercy waale boo ko bëggee yeb da ngay laal Zénith ay waali boo ko bëggee demal Suisse waali boo ko bëggee yëg Sénégal siiw bi dafa yomb fii da nga gis ku ñàkk fay def benn comédie ñu estaté ko ci whatsapp bi mu siiw ne star star du loolu waali boo ko bëggee yëg dangay liggéey ba nit ñi xam ne ah concurrence ak waali jot na Balla Gaye bi mu bëree bëri Yékini daa jot keroog Balla Gaye bi mu waree jàkkaarloo Yékini dafa jot àddina bépp xam ne lii jot na ñu tëgg ko <laughs> xool nga la ca nit boo demee ba di ko sóoru bu la kenn ruux bul nekk complexe am na ñoo xam ne bëgg a jot ci waali mënuñoo jot ci waali dajale cinquante mbooloo daarul waali ku tabax këru budget un milliard ci xale bu ndaw di liggéey di dimbali néew si doole yi nit ñi di tëdd sa buntu kër di yelwaan nga leen teral te yàlla tax nekk taaliba dal bu ko neexoon mu réew waali fi mu toll Sénégal bu ko neexoon mu réew ay wax daanul waali mbooloo daanul waali nee naa la gaynde du xool cuuc gaynde du xool cuuc waali lion la waali ba ba coow li amee ba tey dégg ko mu tontu xoola personnalité fi mu toll barke Serigne Saliou Mbacke vidéo yi doon am maa ko woon waale ak Youssou Dieng vidéo yi bi gaa li njëkk a def mooy tooñ bi ñu njëkk def mooy jël estati ay photo waali ñoom jàng dafa mel jànguñu waaye bu doon beneen waykat porte plainte na leen da leen di porte plainte ñan ngay waxal ñan ñoo jël photo waali ñoom si ñoom ñoom ñan foog ñi nga wax ñi nga tudd yow a wax ñoom Siri ñoom Siri ak staffam ak waa Subatel ñoom rek la ñoom seen coow man Subatel ak bëccëg a ci ñun xam nañ lépp xam nañ lépp te ñoom ñëpp xam naa leen xamante nañ ak man bu baax Cheikh Mbacke xamante nañ ñun séq naa ñoom xamante nañ bu baax dama ne la man naa ngi doo ko wax te ci ñu war a wax ci laa bokk ndax ni ma mel ak waali la bu ñëpp waxee te waxuma day mel ni sama bëgganteeg waali ak ni waali mel ci man fayuma ma ko naa fayu ma naar bi xoromam ne la attaqué waali du ca <laughs> ay la rek waali bu tëddee nelaw booy mënuñu ko yee déggoo li nga fi wax yëpp tamit est-ce que du affaire ay moyen nga toog mais mu amul moyen demal nga toog moyen tax ngay wax man nii loolu fi di oto bu hmm. moyen amutoon fu nii jëm bu ma doxee nar a ma jëm ñëw fii fu boo amul moyen ci àddina demal nga toog moyen mën nga koo ñàkk te ànd ak yar ak personnalité ba moyen ñëw doo ci ñaaw mais soo amul moyen boole ko koy wax da ngay gën a ñaaw est-ce que Wally na mu doon jàppale Sidy Diop avant xëy na muy euh, tàkk en tout cas ci projecteurs yi euh, di tàkk ci côté am après bi nga xamee ni am na tour di yëngal comme ni ñu ko waxee jamono ji Wally approche boobu wala bu Sidy sàkkoon xëy na dem ci soirée ci sa gis-gis ko ko accordé aussi est-ce que fiirul aussi parce que dafa dafa bari ci nitu nitu culture yi de manière aussi. Wally bu toppee Sidy day concurrent nga wax ni fekkoon na daa ñëw soirée bëgg a yee Wally yokk tey jii tey tey tey tey bu dikkoon soirée Wally yéegal yéegal ko bu ñëwoon foog tey tey ñu ngi foog xam nga. mais bi mu siwee après Wally mosu ko eh, invité Cheikh Mbacke siiw jaaxalut Wally Chris Brown la nekkal bërki démb mooy Ndiaye Chris Brown dañu dañ ko mën a fay sax pour mu ñëw Sénégal <laughs> ñun ñu fayoon Chris Brown suñu budget daanu di <laughs> ñooñu la diyool <laughs> Wally mentalité am Serigne xam ne ni yéenay wax affaire bi mais Wally néewul fi mu toll nii bu yeewoo nii naan na kafe xool ci YouTube bi reetaan taal oto bu cher wàcc këram teral ñi mu war a teral dem nekkul fii ngi nekk ñun xam fu nekk sénégalais mbel mbele waale newut foofu te bientôt di nga xam ne waale nekkul ci mbel mbel yi ci jëf la nekk waale amul leen dama leen Sidy Diop bu ñëwoon tey vok vok tey ji ànd ak estafam waale wax ñu bàyyi ñëpp ñu dugg mu yëgal ko ci kaw seen may ko million yuppil ko nekkul fi nekk xam nga waale waale bu toppee Sidy rek bu toppoon Sidy rek mel ni day mel ni ñoom Sidy la gën a xam kuy waale keroog ba mu naan ko pourquoi Ndakaaru lu tax ñëwoo ci biir Ndakaaru ku soxor du mel noonu dama ne la ku soxoor du mel noonu xam lu ñu war a bàyyi. Mm. Sénégal dafam ñoom dañoo xëy am temps defuñu dara. daa am ñoo xam dañuy xëy rek am temps defuñu dara Sénégal nag ku ne ak ki bëgg. ku ne am na ñoo xamante ni buñ Cheikh Mbacké rek lañ bëgg am ñoo xamante ni yow rek lañu bëgg mais nañuy wax dëgg te bàyyi wax lu nekkul dëgg am na loo xamante ni du combat. su ma doon siidi damay yor rek te bañ a sëqat di liggéey def sama waali sama grand comme ni mu njëkkee woon mais ñu la sol. nee la yóbbante jël ubut làmb ci say kaddu moo dina Wally Seck ak ñi ànd ak moom amuñu possibilité wala jotu def li nga xam ni xëy na moom lañ leen accuse ay accusation nga ko nga ko tuddee mm. ban jàngat nga gis ni moo war a jar alors ñoom ñi nga xam ni xëy na ñooy ànd ak Sidy Diop jamono ji di ko accompagner ñu def jëf ji alors bu dee pour buzz la certainement aussi jar na aussi parce que weekend bi yëpp Sidy Diop Wally ngay dégg est-ce que buzz boobu aussi c'est normal aussi si di wutee ko nii bu dee loolu nga ko jàppee. xam nga buzzu sàcc baaxul. boosu sàcc xam nga sàcc danaan bëri ci ko ñu ne wuub sàccee eh, wuub ñëpp topp ko ñu ne lu mu jël ñu ne télé ñu ne te sama téléphone la xëcc loolu sa xol lu muy laaj yow mi jàpp sàcc bi ni ak ñi tiim sàcc bi pourtant di nga gis sàcc bi waaye dóoru ko rek ngay bëgg wala jam ko loolu boosu sàcc la lan programme di ko def xam nañ ne waalee fi nekk nan ko tudd te moo fi nekk mooy lion bi ku deful dara doo dégg dara géwalee ko wax sama mbokk yi ku def dégg lan wax ku deful doo dégg dara waal daa def ñoom am na am na waykat bu mag bu leen gën a jege lu tax defuñu kii bu leen neexoon ñu jiiñ ko waaye xam ne ne kii nag mooy daj dëpp ki kii nag ku ko laal laal laalaake kii ku ko laal xam ne gaynde gi nga laal kii ku ko laal xam ne vainqueur bi nga laal ki nga kii ku ko laal xam ne ah ki jaral laal nga laal ñu ne nañ ko attaqué soirée bu tas 4 heures du matin waaye bu yàqu soirée xanaa sax ay 2 heures nga yéeg ci kaw seen bi waaye soirée bu jeex 4 heures du dul ay dof ñun sénégalais yi audio yi tas ci dëkk bi yaa may dégg baax mm-hmm. ah kon waale bu doon tas day bàyyi ba ay ba heure soirée bi commencé mu tas waaye tas ak lu ñaaw moo nekkul ci xolu waali dama ne la grand billaahi su ma waxee sax interview moo tax sax duma ko gaaw a def te su ma waxee dana seen mbàkk faral waali koy yeewoon loolu koy àndal xam jikkoom koy àndal xam jikkoom hmm. waaye li ma la wax sax dama nëbb lu bari ci moom ndax catu baaxul waaye dama la nañ bàyyi mbele mbele gi te coow te te liggéey nañ bàyyi mbele mbele gi waale ay ay wax daanu ko ay sangak suul daanu ko ay sëriñ daanu ko kër bii la parce que xool aj loo def yàlla ànd ca nan joob te xam ne ku nekkul sa moroom ah da bu ko bu ko def moroom ku nekkul sa xarit bu ko def xarit Cheikh Mbacké ngir ñu génne ci li nga xamee ni parce que li ñu war a waxtaanee bari na ban intérêt la staffu waa suba teel de général générale war a am ci accuser Wally lii quand même ban intérêt lañ ciy gagné ñoom alors. mooy li ma la wax ne Wally dafay ne dafay nekk. mënoon nañu dem accusé Baba Mbengue bu Pikine ginnaaw raay mënoon nañu accusé Thiat Seck ah mënoon nañoo accusé ko waykat bu tudd Cheikh bu sëñ Babacar dëkk Pikine Abou Thioub loolu mënoon nañu ko accusé xam nañ du leen jural dara xam nañ ne bu ñu accusé ne Abou Thioub la moo yàqu suñu soir nit ñi naan xoolu ñii mais xam nañ ne kii ñuy accusé moo fi te xam nañ ne barki Seexul Xaadim bay re ba mu yor att ki macha allah nit attanu ko ñu ne nañ ko juuj pour am bës loolu rek la yow mii di wax xam nga ne loolu la waal dafa waal ñoom bi jàpp bi ñu yàq seen soirée waale nga sol lu rafet nekk ca Tunis xale yi war ko def table un million 30 mille 500 mille 300 mille 200 mille dama li waali sol daal bi waali sol tey laa la ko wax daal bi waali sol ak ceinture bi 1 million lay jar waxuma nag ku nekkul sañcakat laa jal sañcakat xam nga ñun dañoo xam ba bagage xam yére yu baax dama ne da xam nga loolu mooy li li ko moo géet fayal daal la beeg ceinture bi xaaju soirée bi la ko <laughs> kooku na yàq sa soirée. leer na daal bi seen déglu ma wax la dama sañse man maay sañse man maay Cheikh Mbacke dama ne la daal bi waali sol ak centre bi un million la te ensemble bi waali sol ni ñëwagul fii kii fent bi ñëwagul. montre waali 45 millions lay jar jamaa ak or la dañuy waxtaan dama lay wax benn affaire bu kii dama lay wax mu leer li waali sol jour boobu rek laa dama ne day jënd soirée bi 15 soirée la ñoom seen 15 soirée bi maanaam jëmmi waali lépp rek li ci nekk ci matériel. ku xelam dalut mooy yàq soirée waaye eh? koo xamante bu tëddee nelaw xalaatul dara xalaatul ñii làmb ji gisuma ko ci daam taay baa baax wàllu du mongol leer na léegi kat nga bëgg a accuser ni mooy mongol Sidy Diop certainement Chambak déggu ma Sidy Diop ngay accuser ni mooy mongol alors non non dama ne la du mongol alors waali mhm. <laughs> dégg ne daanaka deux ay genn wàllu mètre wàllu wàllu du mongool lu mu sol mu jàpp ko Sénégal bëgg ko mu civilisé te Sénégal ñu xale ñu bëgg waali te gisoo bu affaire bi amee nga dugg ay YouTube ah dama ne waaye jërë muy xeex ak xuloo kenn man man rek bu ma taxawee kenn du taxaw barki Seex Ahmadou Bamba Xaadim Rasul dama ne la ñi fiy tudd ñëpp xam nañ kuy Cheikh Mbacké te biyantoo nga dox ba gis maa ñoom di nga xam gis cër kon waxantuma laa waale waale sama patron la moo may fay su ma feccee su ma feccul moo may fay fu dem dem waale ma fa yóbbu président Yaya Jammeh li li liñ koy waxal yëpp waale ma njëkk a duggal ci biir pale ba ci laa xam ne kii ma àndal ko tuuti bi du kenn visite ko ana waali ñu jaarale ko porte boo xam ne ànd ak moom jiitle ragal féete day xañe wërsëg man la Cheikh Mbacke mu Waly Balago Seck. Cheikh Mbacke bu Waly Balago Seck di fecckat di liggéey jamono ji ak Waly euh, ngir ñu génn ci loolu rek Omaro génn nga gis nga sortie bi nga xamee ni évidemment def na ko bi nga xamee ni xew-xew bi am na ndax dangay ngay dëggal ni problème dafa judd woon lu jiitu luy ci diggante Omaro ak Waly Seck parce que franchement nekk na génn boo xam ni euh, bett nañu bare kat. man Murit dama foogoon ne bakkanam Sëñ Tuubaa rek la ko war a jox dama yaakaaroon ne li ñu sëñ Tuubaa defal ñun suñuy bakkan waruñu ko jox kenn ku dul Ahmadu boo fekkee nit te àdduna yëpp nga bëgg jël sa bakkan jox leen ko boo tëddee ba gudd jot yow da ngay xoolaat sa bopp man Cheikh Mbacke mii toog day billaahi wallaahi taalaahi li may bëgge xool ba may bëgge jox naa ko sëñ Tuubaa te sëñ Tuubaa ma te bëgg boo nekkee murit waaye kun la waxal rek nga ne bëgg naa kooku bu yàggee fi mis sa ngay doon am na ci ñoo xamante ne ñi ngi ci télé yi di wax mais boo daje woon ñoom guddi duñ la wax dara <laughs> xool ma te habite à Pikine dëkkoon ginnaaw raay duñ xam na dama ne la maa ngi nuyu waa Pikine ginnaaw raay yëpp suñu waa koñ ñëpp maa ngi leen di nuyu na ñoo xamante ni bu leen caméra dëppee lu ne la ñuy wax xool ma bakkan hmm. yàlla nga ko war a mën a jox ak yonent bi ak sa sëriñ ñun murit suñ ci wàllu jox suñu bakkan waaye yow foo mën a amee 500000 rek nga joxe fa bakkan foo amee 200000 nga nga joxe fa bakkan waaye kat bu génn bees nga jiima ànd ak moom bu yàggee dañuy xam lan mooy sa jikko. alors lu jiitu loolu question bi mooy ndax problème dafa amoon ci diggante Omaro ak Wally parce que ñëpp xamoon nañu quand même benn instant euh, jege wala en tout cas ci ay kàddoom ni nit ñi daan déggee porté bi nga xamee ni amoon na ko ci choix boo xam ni porté woon na ko ci ci Wally Seck problème dafa jiitu lii wala. xam nga tey benn affaire mooy euh, benn affaire mooy Omaro <laughs> jikkoom mënta jege Wally Wally ku bon du ko jege. waale boo ko jege musul jege ko jege non non am na ñoo xam mën nañu ko ci rek maa ngi fàttaliku benn jour maa ngi ànd ak waal yi euh, cité mixa ñuy tourné clip Omaro wàcce foofu noonu ci immeuble yi sol tubéy bu ñaaw chemise bi moo rafet tuuti rek ak chemise euh, super sang nii barke Cheikhul Khadim waal ne ko Omaro mu ñëw mu ne ko sumil tubéy bi nga changé beneen tubéy mooy gën a rafet moo yàgg a Lat Diop déggan mbaay dem Demba déggan mbaay Kuraak Faaleeg déggan moo yàgg a baax ne ko Omaro mu ne ko am ah, mu ne ko simil tubay bii nga sol nii nga dem changé beneen barke Serigne Touba du ma ko fàtte Omaro ngi soloon simil bu weex ak benn genre xam nga super sang bu ban couleur Omaro dem yéeg déggal waali simil loolu def super sang bu bu xam ban couleur ma xam ne dëgg neexul billaahi wallaahi taalaay kon ku mel noonu Omaro mënul mënul mënul waali jege ko du noonu ñun ñuy jege ko yàllaa nu booleeg moom ca aras yàlla waali la ma bindal sama jëb yi ne kat sa nit la te li ma wan moo tax may ànd moom li ma wan moo tax may ànd ak moom il mu leer nit lam la wan ca nga koy jàppe Cheikh Mbacke doo ko laal ci kanam waali Cheikh Mbacke waalee ko may doole Ramadaan Cheikh Mbacke waalee koy fay bu fecceeg bu feccul Cheikh Mbacke waale da ko bëgg dafa leer àddina bi yëpp estati yi ma doon def soxna dafa maa woo ba kër ga soxna jabar waali dama Cheikh Mbacke da ngaa jege waali c'est trop bul dugalee sax estati ñu mel ne da ngay gaar waale barke Seydina Mouhamed kon ñooñu waaye seen xel li nekk ci Omaro na xam ne mag la mi ngi aase na xam ne mag la mi ngi aase mu ji ma xool immeuble yi oto yu baax yi mbeeraay gi ak wax ji li mayewul dara nanu joob te wàññi wax ji ku la sut woowee njool mi ku la sut da nga njool mi mais bu fekkee ne yàq moo la tax a jóg wala nga foog ni mën nga koo may bës ci yàq nit yàq nga ko lii nu def nii dafa gën a indil ay noon Sidi xool li ñu yàq Sidi ci internet bi ah yàq Sidi ci internet bi te loolu ñoom rek la ñoom kese la ñoo ko indil loolu Omaro fu nekk mu joxe fa bakkan ndax 500000 fu nekk mu joxe fa bakkan ndax 100000 francs ah loolu pourquoi ci mag mu toll ni moom te nit ñi yor ay vidéo yu muy tarbiyoo waale nit ñi yor fi ay vidéo yoo xamante am na ñoo xam papa la ñuy wax waale vidéo yaa ngi fi te nii nii bientôt am na vidéo yoo xamante ni gis naa ko teg naa ci sama bët bu génnoon musiba am. vidéo kan Umaru. du fi tout <laughs> ay vidéo yoo xamante ni fa mi ngi fi nii rek te te nit ko yor. nu koy calmer ne ko bul génne lii kon xam nga ñun xeex ak xuloo taxu ñoo jox xam nga ñun luñ tax a jóg. ah ñu ñuy dégg fu ne te lu ñu am jox suñuy waajur te suñuy xolu waajur bañ a tàng ci jun am na ñoo xamante ne xam tax li ñuy def ñu koy def seen i tàng mu ne ma fees seen jëm ñoo tax ñuy déliré pour nit ñi am na loo xam boo ko defee dañ lay bañ xam nga nit booy liggéey hmm. da ngay xam ne yaa ngi liggéey waaye télé bu ne nga dem fa di wax waali te waali mooy Sénégal waali caabi Sénégal waali ko téye ci loxoom boo bëggee nag mu àll la mu nga xool visite laat ko waaye mais caabi jaan ci biir poosam am na loo xam ne nag ñu ngi la koy accuser Cheikh lu tax natureloo quand même Cheikh Mbacke yaa ngi ci showbiz bi c'est vrai lii la ñëpp di jëm tuuma mooy Cheikh daal sa jaay taar gi daal jaaxal nañu daal Cheikh lu tax modeste woo quand même nekk taalibe wane ni njaareem Cheikh macha allah da ngay solu ñëpp nangu nañ ko lu tax modeste woo Cheikh tey sax damaa la zeeru dama la zeeru yeewu bi ma ñëwee dama la zeeru noonu rek daal di ñëw bu fekkoon émission bi tey jii dañ ko war a defee beneen place bu dul fii damay xool leneen modeste def naa ko tiitaru géwél rek laa yor waaye waaw tiitaru géwél mooy sangu ba set sol lu baax tey wax tuuti tey liggéey lu bari hmm. mooy tiitaru géwél ndax lu fi baax ñun ñoo ko wane sama ñàkk modeste Sénégal xam ne nag fekk na civilisé trop nekk booy boo xamante nga civilisé baax ba tey sénégalais yi bëgg la faa faaw nga tiitaru mais du tiitaru dara tiitaru civilisé rax sa yaram yi ba mu set la teg ci lu baax xama yaram yomal xiyam day layoo am na ñoo xamante ni boo solee yére bu nilon ñaqaay bi lay yomal xëyam di nga dem bay dugg ajjan sa yére bi na kaay daan nga gis coton te doonoo koon sol mais Cheikh Mbacké dafa opté di sangu ba set di sol lu rafet hmm. di xool ñi baax muy wax ak ñoom te ñin jàpp ne dañoo bon te seen calcul Cheikh Mbacké ñin jàpp ndax kenn bonul mais ñin jàpp ne dañoo bon Cheikh Mbacké bàyyi leen fi xool ñi baax moo tax ma taamu sama waa ji laata jub diggéen bàyyi joor dem ba diggéen bàyyi kuraak faaleeg diggéen waaw Cheikh bopp Waly balaa Pape Aline Ndiaye international sénégalais <laughs> tay la tay sama xarit boobu ma nga ca Guinée. Cheikh na fisa Nafisa mbokkum doyum du <laughs> tey daal ak Ngule Ali sama waa ji damaa bëgg tey mu dugal Pape Aline international sama xarit la faaw ma ma rax ko ci émission bi. <laughs> très bien damaa seetaanul ci dara. Euh, ngir ñu jeexal forcé nga sa bopp waale nii rek dox dox. waale waale forcé boppam kenn présenté wu ma ko <laughs> xam nga forcé mooy lan kuntee ci loxo indil la waale ne ko kii ay diw waale ma xool ne ma Cheikh Mbacke dama laa bëgg. mais Cheikh yaa ngi dund ci turuwaal yi nag ah? jënd man yaa ngi waaw dund ci turuwaal yi nii de gars yi non non man rek la laa <laughs> non non waali mën naa ko teg mais man rek sama jëm mu dëgg neexul Cheikh tojoo ma gis ma non non apart waali sekk la la ñi ñu xamee te sax yàlla na yokk xam waalee ma gënal ku dul waali xoola hmm. xam waalee ma gënal ku dul waali tax barki Seydina Mohamed ci way yi jikko lay ànd ak doomu aadama du xaalis ndax milliardaire laay doon bientôt suñ waa def na ma ko xool bu baax li ma lay wax interview bi ma interview tey xool boo may jël si waat interview na xool bu baax li ma lay wax dama ne la man murit laa man waal li ma wan moo tax may ànd moom dara fi ñor dara ñorul fii ban koy màcc dafa am lu moom lu baax waal ba ni ànd du tey bokkuma ci ñi riir nii ci waal yi waale ñu ngi wax ab damel laa ko fréquenté Ouest Foire ba ñëw Nord Foire tuxu si keroog bi muy tuxu si Nord Foire maa ngi moom ñëw fanaan bu suba jot mu ne ma seex suba damay dugg sama këru bopp kon jëgëriwu ma waale fi jógee dem Ngor ñëwaat fii def ko septième étage <laughs> boo yéeg ñaari ascenseur ne ci kër gi ah souterrain bi ne ci suuf kon jigéediwuma waali forcé wu man du ma kenn soo may forcé sama bopp suñu tuwaa laay forcé sama bopp pour ëllëg <laughs> merci merci en tout cas Cheikh Mbacké dig daje beneen jotaay sur la chaîne de fi amalim ndax man jaxle naa de. gën a ñëw nañu de. préparé wu ma dara dara dara dara dara. waa nu may def. ndax xaw ma. sa door mi ngi ñëw. sa door a ngi ñëw. moom mi ngi ñëw. indaale vermicelle. sa door mi ngi ñëw. sa door a ngi vermicelle ak macaroni ah jëm